Toma, legal, pô.

di nuyu yéen ñëpp di sant yàlla bu baax ju Seydina Mohamed sant di sant waa Réfane ñëpp di nuyu sama xarit di di nuyu bada sama xarit la chef de protocole ala di nuyu contact faat seen ngi lay nuyu maa ngi man ku ku ma déggoon sax xam ne bi ñëpp ne candidat man itam newoon naa leen candidat laa man mii di wax yéen candidat la wonde mais dama xamné ne moonu ah waaw teel a nangu day yëbay duma to barké serigne Bamba ñi fi né buma ma jib bayoon ak ñom man rek ma gagné leen barké yalla parce que lima mëna mën a aji reefan ak réaction yi ma am ak connaissance bi ma am ñom amuñu ko xamnu kenn barké mohammed dib mi bak dem rek la dem ci ministre de l'intérieur ya, Antoine diom mu ne ma jàppale ko c'est que ñun waa Refane chaque fois wax ko xëy na xamuñu ko mais man mi nga xam ne ya yàlla dogal na may dem ci kilifay réew mi koo dem na ko Refane mu ne la bu baax ngeen am bilaay walaay taala nit ku baax la parce que sëñ Saalum Antoine Antoine Diome mii de l'intérieur dem rek laa dem bureau mu ne ma déggoon naa dana laaj maire Refane ma ne ko waaw mune ma jàppaleel Djibril taw c'est un intellectuel nit ku bax la di len wax yeen ñep digeen ni goor ni jàppale len ko man bok bu ngeen ko jàppalee lepp lu mën di ak connaissance bu ma am dinaa déjà sax ma ngi bëgg andi fi, wali Seck bu nu jàngi fam bi biig rek ma ngi won Bercy Kaolack salum fala joge waxtaan nañu ci pour mu ma andi ko reefan barke Mouhamed yëpp gagné dama koy def gratuite bu ngeen wootelee jibi ba mu ne at ma andi fi waali def ko gratuite barke sëñ Saalum Mbacké to balaa campagne yi dinaa fexe benn atti bu mag wooy la wooy wu neex nga def ko campagne macha allah jërëjëf jërëjëf Wouly